min asheytaani rajim bismillahi ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim mbokki jullit yi ci turu président de la république El Hadj ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di jiital ci nuyu bi Cheikh Bekay Kunta xalif général de la Xadriya di jël nuyu bi di ko teg ci loxo rakam bi mu yeggaleel ñu bi ci moom di ziyaare tamit njabootu kunt yu gépp rawatina ñi dëkk ak yow fii ci biir Njaasaan ak ñi bàyyeekoo ndànk ak sañcu bunaa ak ndeer gépp ñoo ngi nuyu mboolem muqaddam ak cheikh yi ak taalibe yi sëriñ bi président daf ñu fi yónni ak délégation bu am solo ag Bécaye Mbaye lim na leen léegi nii sëriñ bi bala ñoo ñëw ci bés bi ñu dem ci cosaan la suñu maam Cheikh Abdou Khader Jeylaani radiyallahu taala anhu mi wax ne fa jabi rasulillahi fa muhammadan ana Abdul Khader cheikhu kullu tariqati sama maam mooy rasulullahi ñu koy wooyee taxaa waaye nag man Abdou Khadr maay sëriñu bépp tarixa euh, tarixa xaadiriya mooy tarixa bi njëkk ci àdduna wax nañu ne mu ngi dugg senegaal ci atum 1776 mi ngi dugg ci Afrique sowu jant jaaree ko ci seen maam Cheikh Ahmed al Bakay al Kabir ba wàcc ci seen maam bu naama fii ci senegaal dara ji ji nekkoon ci Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani moo nekkoon ci maam Sidi Mokhtar Kuntiyu ba ñëw ci maam Bunaama Kunta loolu moo nekk ba léegi fii ci Njaasaan seen maam nag moxtaar al kuntiyu radiallahu taala anhu bokk ci ñu doon noon cheikh abdul xaadir jeylaani wuutu ko ci tarixa bi cheikh ahmadou bamba sama sëriñ ba nee na boroom leer la ci téere masalikal jinaan mu ne ko xutbu raha xawsul wara muxtaari yore nga tiitaru xutbu samaan ak tiituru xawsu koo xam ne yow la yàlla dénk mbiri mbindéef yi nga jamonoonteel maam Sidi Moxtaar Kuntiyu sëtub suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo nit ku doon maam Abdou Xaadar Jeylaani sëriñ bi ñoo ngi leen di ndokkeel ci bésu maam ci seen bésu maam bii bés bii di seen bésu maam Bou Kounta mi nga xam ne mag ñi baax ñooñu ma doon tudd dañu ko doon waajal ngir mu doon xalifa Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ci senegaal ak ci réewu Afrique yi ko wër wàllu yu bu baax la woon moom Baye Mouhamadou al Kountiyu maam Sidi Ahmad al Mahrouf ñu gën koo xam ci maam bu naama Kounta radiallahu anhu kaana min ahlil fadli wal wilaayati wa mi ngi bokk ci ñi yàlla joxoon ngëneel ak wilaaya akuk mbaax mi ngi gane jamono ci atum 1840 génn àdduna ci atum 1914 moo sañc Njaasaan ci atum 1883 Njaasaan doon dëkkub diine ak xam-xam ak sell ñi fi nekkit ay nit yu yàlla jox ngëneel lañu ak wilaaya loolu nag du jaaxal kenn ndax ay sët lañu ci Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaaree ku ci seen maam Abdul Xaadir Jaylaani loolu moo waral li am njaasaan lépp mbir yàlla rekk la ñu yàgg am ay relation ak kilifay réew mi yëpp la muy kilifay diine ak kilifay aada olof njaay dafay wax ne bu deret jaxasoo xaste jeex te loolu mën nañu ko seere ci diggante bi njaasaan amoon ak kër diine yëpp rawatina Tiwaawan ak Touba boo jëlee Tiwaawan danga nga fa fekk kër gu ñu tuddee njaasaan ndax Seydi Ababacar Sy moo fa dëkkaloon soxnaam muy soxna Marème Kunta di doomi maam bu Tiwaawoon ak Njaasaan tey géographie def na ko benn dëkk maam Malick woote gàmm ci bésu gane àdduna sang bi sallallahu alayhi wa sallam maam bu woote ci ngénte li pour màggal gane àdduna sang bi boo demee Touba. dañuy tàmbali ci waajuru Serigne Touba maam Momar Anta Sali mi tuddee maam Cheikh Anta boroom gaawaan Serigne Sidi Mokhtar Kuntiw mi ngi doon tudd léegi Serigne Touba amoon na soxna Mariama Kunta moo toppoon ci Alaaji Fallu Mbakke Cheikh Mamadul Moustapha premier xalif Serigne Touba moom it yoroon na tamit doomu maam bu ñu koy wax soxna Astou Kounta kër Cheikh buu mi nga xam ne bii bi mu fi jógee yàggul soxna Aminta Mbakke moom Serigne Modou Moustapha premier xalif des Mourides gannaaw Serigne Touba ma nga fa loolu moo tax nangul ngeen ñépp seen cër ñoom it nangul nañ leen seen cër bi leen yàlla jox sëriñ bi tey nag xel yépp dina dem dellu ci Cheikh Bou Mohamad Kounta mi fi jóge bu yàggul te nekkoon ak ñun daaw ci gàmmu gi taxawaayam ci xilaafa gi ñëpp rafetlu ko ñu koy ñaanal yàlla yokk leeram sëriñ bi président Macky Sall mi ngi feddali kóllëreem ak njabootu kuntu yëpp di la wax ne li mu la waxoon bi mu fi ñëwee fan yii bi muy daloo taax mi mu jagleel njaasaan loolu benn rek ci yéeneem ci mu am ci dëkk bi sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér uuf njaboot gi te tànk yu sa mag yu baax yi ak sa wayjur yi doxoon nga def ci lu raw sa njot sëriñ bi fii ak ñetti weer daanaka yu manqué ñetti fan senegal dana dem élection pour njiitu réew mi ñi koy xëccoo ñépp nag ay doomi réew mi lañ kon ku ci nekk am na yéene ci réew mi yàlla mi nga xam ne moom moo man lépp mooy joxe nguur ñun dañuy sabablu rek ñun ay jaamam kon sëriñ bi ci barkeb bés bi ci barkeb sang bu tedd bi ñaanalal senegal ñaanalal njiitu réew mi woo ñi nekk ci géewu politique bi ci ak dal ndax lii nga xam ne lii ñépp kenn mënu koo séddoo ak ku munta gañe dañoo war a xam naka lañ koy bokkee sëriñ bi yàlla may nañu ñu gàmm woon daaw fekkee ren ñi ngi ñaan yàlla nga ñaanal ñu également ñu fekkee ay gàmm yi di ñëw te gàmm yooyu gënal ñu gàmm gi ñu dem asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.